منهج السلف ودعوة إليه ويتقو يونو مغنو باخني من سلف الصالح أكووتي سيسين يونو السنة والجماعة السلف الصالح تا القرآن السنة تاكوتي كوسوف كان نكون فهم نكرا نكتش تصل دارو سنين برام سبحانه وتعالى benen bi goor gu baax day deglu jabaram te diko ormal nak problème bu am nak na ngeen ko waxtane waye bul japp ne may colonel bi rek lu meune waw waw la lu meune deet deet la déedéet ku meun sëy doxale non soxla si koy libérer ci kër gi mu am kàddu ndax dafa ñew ci kër gi bokku ci kon dafa am kàddu da fe am ay dom dafa am kàddu day seeg yow dafa am kàddu kon respecter ay kàddu waaye lele nga ñew sa jabar neel dama la so nga ko damay nelaw ah damaa damay noppalu non gor gu bax du def non sa jabar bu la nee dama laa soxla neel tekk toogoo ko te nga déglu ko déglu bu rafet jàkkaarloog moom mu xam ni jox ko waaye mu ñëw waxal moom leer na ko ni li muy wax doo ko déglu déglu ko ci li muy wax joxal fayda li muy wax mais du mu jël dara wax la ko nga oyofal ko sànnil ko ko xeebal ko ko déedéet waxtaan ceeg moom te dalal ko incha allah bokk na ci góor gu baax buy yore jabaram dafa war a yore jikko ju rafet ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikko ju rafet la tàmm te bëgg ko te digle ko jikko yi rabet nag bokk na ci. sa jabar foo ko gis sa kanam dafa war a ubbeeku da ko war a wan kanam gu dal ubbeeku kontaan chaque jour ngay yeesal sa nobel ci moom ak sa mbëggeel même boo demoon ba nekk nag. yonent bi xool ka tollu na ci cinquante sept ans xoolal julli ko koor weeru koor mu jàpp bar di dem jàkka ja turne ne Aïcha sa xool ko. mu ko dama la bëgg rek ci sama xol xoola lu mel noonu nga foog ni loolu nekkul lu rëy ci aysa lu rëy la day tax mu gën a wàcc sa gis nga yar bi jubbanti jigéen tu doole naxtaana koy jubbanti ak di ko waxal yoo xam ni dana tax xelam dal beneen bi sa jabar góor gu baax jabaram day am sécurité sécurité ban laa bëgg a wax mooy kenn du jël jigéen def ko mbindal ñu bëri loolu dégginu sénégal la woon démb ci sunuy maam ya ba ba ba ba léegi am nañu ko man sama jigéen day liggéeyaa ah, jigéen de kii moo war a def nangam naam dafa ñëw di liggéey mais du jaam ndaw si mooy fóot mooy bale mooy togg mooy ménage mooy fobeere mooy def lépp kañ lay noppalu est-ce que lii yow bëgg nga sa rakk bu jigéen mu dem sëy ñu def ko noonu et puis nga nekk ci biir kër say rakk yu jigéen ne fa amuñu jëkkër wala ñu am jëkkër say mag yu jigéen ne fa amuñu jëkkër wala ñu am jëkkër ñoom ñëpp ku nekk sang solu toog sa jabar mooy mbindaan mi loolu ku koy def yaa ngi lor jigéenu jàmbur say rak ñuy togg comme mom dañuy fóot comme mom nga taxaw ci wétam nek avocat nak non jabar la bu nangu ñu def ko jam so deful dank sa yaay dana ko def jam. so deful dank say frère danañ ko def jam. ku jog ni ko warna ma nam war mën na ko def suku ko mënee up lu ëpp So day tour so amé moyen nak outal ko bindal wala ku ko jappalé day gëna bax li mo xam nga kenn mënta yendoo liggéey guddi mu toppatoo la alxuraan dafa wax ne hunna na lakum waaye yére booy sol da nga bëgg mu dand toujours ras déedéet bu fekkee jigéen bi 8 heures ba 22 heures mi ngi liggéey nga bëgg boo wàccee mu sol lu rafet toog sawet wet di la xool mën na sotti déedéet kon liggéey bi day wàññi am na yu mën mais sa rakk yi séyeegut am na lu ñu war a def am ñoom duñ fi nekk di jàngi di ñëw di émaay di yore ay weyu gudd mel ni ay segg moom mu nekk rek di liggéey loolu mënul sotti kon da ngay taxaw ci wetam yiir ko wax ceeg sa papa ci teggin wax ceeg sa yaay ci teggin. waaye nag bu ko bàyyi nag ñu toroxal ko toroxal goo xam ni jigéen dina nekk ci kër di jeex di jeex nga di ko xool fekk liggéey bu bari lañu ko teg loolu loolu baaxul góor gu amul yërmande moo koy def jabaram. mbokk yi nañ leen rafet ci soxna yi dañu xam ne suñuy rakk lañ balaa jabar sa rakk la balaa jabar sa mag la def ko ni nga def say rakk jàppale ko dafa génn ci kër ñëw ci kër. dafa bàyyi bàyyi ñëw fekk si bàyyi dafa bàyyi yaay ñëw fekk si yaay kon yaay ak bàyyi nañu ko yërëm yaay yow sa goro bu ko toroxal yaay du jël goro def ko jaam xoolal yaay bul jàpp la la nekkoon démb nga àtte ko tey kon yërëm ko def ko ni sa doom tee ko digal bu juumee del waxtaan ak moom. am na góor ñoo xam ni dañuy téye jigéen ba mu sax liggéey xam nga liggéey nekkul sàkk mais bu ko ndaw si bëggee def te nga nangu ko na ko def. waaye boo ko bañee da nga ko fiy tegal lu ko lu ko ko mënta def mënuloo sa moyen daa tuuti yi mu bëgg mënu ko satisfaire dëgg dëgg su bëggee liggéey waxtaanal ak moom ci xel mën a am lu mu def ci boppam seen sëy continuer waaye doo liggéey may si jëkkër liggéey bi neexuma nangam nangam te mënoo koo jëndal daal la koo jëndal parfum dara mënoo ko koo jëndal kon daal sëy bi daal moom dafay yeewe ci kër gi rek mel ni fas buñ fi yeew islaam nee na déedéet boobu boobu baaxul mbokk yi ñeenteel bi li jigéen gën a bëgg mooy as-sidq mooy dëggu góor day dëggu ci kanamu jabar loo ko wax na nekk dëgg boo góorgóorloo ba say wax say jëf lépp nekk dëgg ci wetam moom nga ko jigéen dëgg la bëgg looy def wax ko ko bokk na ci boo bëggee takk beneen soxna dara newuñ ci nga wax ko ko waxtaan ci ak moom su nangoo baax na su nanguwul nga neexalanteeg ma su demee nag ba taxaw ci ne du am nam nga ne gaa ah, déet nag déet lii nag sama droit la kon noonu ngay def waaye nag boo ko nëbbee lu mel noonu dem ba mu am mën naa indi fitna kon loolu jaru bu ngeen gisee fitna takk suuf yëpp looloo ko indi mais boo toogeeg sa jabar mu xam ne ku dëggu nga nga yor ko yor bi nga ko war a yor jaar fa nga war a jaar boo ko nee dama bëgg a takk soxna day sëgg rek même bu fiiree du ci mun dara ndax day xam ne daraam manqué wut daraam manqué wut kon loolu da koy def waaye nag boo jékkee xëy yore sa téléphone léeg-léeg nga woote génn nangam nangam ñëw naa ko noo ñaaree la ko yor nangam fekk yaay tas sa sëy kon gis nga euh, da jigéen da koy rus ci yenn yi même boo dee labat feneen wax dëgg yàlla dafa amul benn solo ak intérêt nga toog sa wetu jabar di tagg beneen jigéen loolu suufeel sa yaayu doom la suufeel sa mbëggeel la xajamal sa sëy la déedéet sa soxna na jox ko bépp respect sa jabar foo munti toog tagg ko moom suñ benn waaye boo xam ne daa dem di labat ñaareel yoo xam ba pare mun ne soxna man de moom ñaareel moom mu yëkkati soxna ne ko waaw am nga aaw ma ne ko ah xanaa déggoo olof ñaareel la mu yëkkati kay mooy am na aaw ku ba bëgg la nag mooy ki ma gën a bëgg ci jigéen ñi ndaw si ne ko kon mu ñëwee du ma am place mu ne ko kon bu yabo xam nga loolu mooy mën wax nit ki dëgg beneen bi bokk na ci ilqaau salaam wa kalimatu tayiba góor gu baax mais day nuyu ay jabaram moo génnee boo ñëwee nuyul waa kër gi nuyul soxna si fekk ko néegam laaj ko njaboot gi nan nga yendoo tey mais am na ñoo xam ne keroog ba seen jabar séesee lañ ko gëjalaat ñoo yendoo ñoo yendoo te gis nga loolu nga xeeb lu rëy la ci ñoom bu yëg ni yaa ngi koy nemmeeku rek chaque jour loolu moo koy mooy pont yi koy daaj ci kër gi waaye boo ñëwee toppatoo woo ko nemmi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo la gën moom ma gën ñun ñëpp moom rek mooy góor gu daan xëy ba léegi ci kaw suuf am na ñu koy def yaa xaw waaye néew na góor ñu koy def mooy xëy génn nuyu jabar yi ñëpp ku nekk mu dugg sa néeg nuyu la toog fa as diir naka nga fanaane naka sa yaram waxtaan a yow bu fa gisee lu mu lekk mu lekk moo tax bi ko jigéen ñi piégé ci foofu lañ jaar piégé ko bi ñu xamee ni moom saa bu xëyee day dugg ci néegu soxna yi ci la ko yaa Aysa ak Xafsa piégé ndax dugg na ci néegu mbaa Aysa ne sa nan la ñuy def Xafsa ne ko nu ñuy def mu ne ko dañuy bàyyi ba mu ñëw ku mu dugg ci yow rek bu la nuyu ngeen ko sa gémmiñ loolu la yonent bi gën a bañ xet boo ko da nga am xet rek def nga musa mu dugg néegi Aysa Aysa wax Aysa du muyu lan la Aysa sa gémmiñ bi daa am xet mu ne ko pourtant déedéet néegu marié rek laa duggoon lem la ma may ma naan ko mu ne ko kon de lem bi am na musiba du mooy mu dem ci Xafsa sa def noonu mu ne leen pare naa dootuma naan lem loolu moo tax yàlla lu wax yaa ayuha nabi lima ma tuharrim ma ahalla allahu lak ndax xoolal yonent bi dafa mën a sëy ba yàlla di ko yedd ni ko bëgg lu neex sa jabar moo tax nga nar a lu dagan ah non mënul nekk kon gis nga góor mën ngaa xëy nga nuy sa jabar lëngu ko xalak moom lu ci nekk amul benn problème jàmm dong la ak salaam ndax ci sëy bi la bokk bu ngeen demoon ba màggat bay raamit dara newu ci mbokk yi yonent bi nee na gu baax du foñ jigéen du ko xas ngir benn jikko ndax ku bon bonle bii am na bu mu baaxal loolu na kenn ku nag ñun xam na ko bu juumee fii mën naa defar fële bu yàqee fii mën naa defar fee kon gërëmee ko yu baaxam fàtte yu bonam am nga yu baax am nga yu bon waaye beneen biit mooy sa jabar na yëg toujours ci yow dee ko wan mbëggeel foo toll dee ko wan sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni mu toll soxnaam yaa Aïcha ànd nañ di dem xare mook saxaaba yi ñu dem ba ci yàgg mu ne saxaaba yi ñu bari jiitu leen ñu jiitu yonent bi ne Aïcha taxawal mu taxaw yonent bi rëdd ne ko nañ course yonent bi ne Aïcha bismillah bi ñu dawee yonent bi raw ko yaay sa mer ah dangaa njëkk a mu ne ko ak ñu rëddaat ñu rëddaat daw imaginer tey ñun boo génneen fii dajeek benn xale bi général buy course nooy def da ngay ñëw rocci sa course ne ko yow matoo sëriñ mat yow moom matuloo ma sëriñ moom ay waay kur ak jabaram journaux yëpp bind ko mbokk yi bokk na ci góor gu baax day wóolu jabaram problème mu kër yëpp ñàkk a wóolu moo ko indi te ñàkk a wóolu seytaane moo koy def seytaane mooy jëmbat fiir ci xolu góoru julit su bëggee yàq sa diggante sa jabar fiir la ciy dugal fiir naam am na bu dagan mais am na bu xaraam gis nga njortu baaxul yéen di gëm yàlla moytu leen njort li ëpp ci njort yi bàkkaar la moytu leen rajo nit kenn du ko seetlu baaxul léeg-léeg góor bëgg xam ci li jabaram dugg biir ak biti soxna si bu demee dakaar amatoo jàmm foo toll yaa ngi téléphone yi bàyyi nag àndal ak xel jigéen ñi léeg-léeg seen sëy tas dara du ko tas lu dul portable. kon njort bu bon baaxul day tas sëy portable day tas sëy. moytul foo toll ne sama jabar dama koy woo du ma wuyu sama jëkkër du ma wuyu du ma nangam du ma nag seytaane koy def bañal bul vérifier sa portable jëkkër góor gu baax du vérifier portable jabaram moytu ko moytu ko su demee nag ba njort su ñaaw ba jéggi de woo ko ngeen waxtaan waaye gis nga portable day fen de day fen li mu mën a yàq mën nga ubbi am ci message boo xam ne concerné wu la concerné wu ko mu yàq seen xëy amaan na keneen ko sànni mu ñëw ci moom amaan na jigéen bu la fiire def ko amaan na ko bëgg a yàq sa sëy bind benn message jëkkëram je t'aime nangam nang nga yem ci ne sama sëy tas na déedéet bañal góor gi it na moytu lu mel noonu الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى كتاب النبوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان أن الأمة, الأمة لا يمكن, يمكن أن تداوي أمراضها, أمراضها ولا أن تشفى عللها ولا أن تمنع إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة على هذه النبوة إلا بأن تكون على ما كان عليه علي المأمون ما كان عليه أصحابه رضوان الله